moom kii ma gis saa ñu yàlla waay yàlla waay kii ma gis oto cotisation. Seydina Omar Touré Seydina Moussa Seye moom it cotisation ne bii tuur cotisation pour kan Ousmane Seye ay gars yeewu leen kii kii eh, bi ñu amoon ñoom. ñu amoon ñoom. may laaj bi may laaj bi. nga xam ñëw ñëpp suuf su nekk wax dëgg te waa Kadas tey mu jaay dina mun a directeur yu Kadas état xamul suuf ne Kadas moo xam suuf yi des yi état bi am na xamu ko maamu dama bëggoon nga may ma benn téere mu làqoon ma régularisé ko dëkk sama siège am jaay ko noonu mu ne ko waay waay bindu ko mu bind ko Ababacar Mamadou Diallo bi ba ko accusé la dafa sàcc ay milliards loolu ko mere woon maamoom mu bind ko ba mu téye lettre ba pare dafa jox ma ne dara xol ko tàng mu ne ko dara dara chantage dossier nangam maam dossier boobu wala mu toon mu ne quatre-vingt-quatorze milliards la maam Diallo sàcc eh, eh, Sénégal yi xam dara gëm ko comme li gëmee woon Aliou Sall jox ma sama 400000 Sénégal fenn yi fi am at yii kàddu yu yi fi am at yii sos ngam yi potaay yi fi am at yii soo ko def fii pour yàq tere ñi yore réew mi bu anti système moom mooy anti système moom mooy ki nga xam loxo dafa set te loxo ba nga doon tilim ñun kuk xale yu bëri naan bu ñëwee danaan liggéey ndax bu ñëwee Sénégal liggéey bu ñëwee ngeen dee ndax li ngeen amagu su réew dañ ni luy xeeñ luy ñor bu baaxee xeeñ ñëwagul ci lu yaram këf ko dèjà yalwaan ngeen ndax leen mën ndax leen mën vous êtes benn leader politique bu yalwaan pour le moment la yalwaankat en chef s'appelle Ousmane Sonko jox leen ma jox leen ma jox seen réew bu pauvre comme Sénégal jóge ci Covid bi yéen a Sénégal yi naan jox leen ma cotiser leen ma ma ñëw jël seen réew mi moom leen téye milliards yi jaay ko attention Ousmane Sonko moo wax may dégg élection présidentielle moo tax war nañu enquête ba xam ndax du ñoo ko jox xaalis ñu ko ñim seetal pétrole bi nee na bu ma jëlee réew mi damay résilier contrat pétrole bi jox ko ñeneen waaye ñeneen ñoo xam ne ginnaaw <laughs> kii fou ah comme ne ñi Macky Sall jox contrat pétrole boo ñëwee da ngay résilier boo defee da nga jox keneen keneen kay jox la lay jox ci suuf loo wax ak moom dafa jox la ay moyens pour nga a ko nangu ma gars yi dañuy réfléchir ci loolu en ce moment dañuy bëgg a ah. bi teg ko dama alal bi bees yi wàññi milliards yi war a ñëw ci gaz ak pétrole moom mi a nemmee donc en conclusion damay ñëw Sénégal affaire bi affaire bu ndaw la ma tax tey intéressé wu ma affaire Adji Sarr Ousmane Sonko bu dee ñeme na na wuy ji kon ma xam ne nekkee benn bu dee moom dëgg yi jox ko boo mu dëgg ñu rëq di jëm ñaar ak mos mën a am bu wóoroo boppam na wuy ji lamb ci sax loolu mooy nag sàq na sàq na am na ci làmb daw am na ci làmb ragal tàppet am na ci làmb gis gis nga wala ba ne xool ba ne eh, ci muscle bi ah day kii bu ko duggee fan laa koy jàpp tànk non commencé dama da sama baaraam dafa gaañ dama naa ci baaraam dama doon am dama doon kii échauffé dem échauffé sama baaraam damm na ba du ko waaye tey nga daawoon dem émission dinañ ko ay question waaye tey xaw nañ ko ay parce que léegi dañ koo xaar ba mu léegi day day bàyyi ñu laaj ko question ñu ne ko ndax da nga ne di wax wii di wax noonu ah nii wii nii noonu <laughs> Macky Sall daal la amul droit wax wii nii noonu waaye moom mi ñu naan waaye eh ne ñu ko da ngay